émission préférée di Ndëmoo wante mom ngeen di sétane euh, tous les jours avec Sista Ndeya tey nag dama doxantu fi nga xamné mom moy mooy euh, Géejawaay seet si waa Géejawaay ndax Balla dafa daan démb ki nga xam ne moom mooy euh, Tafatine géej waaye nag actuellement mu ngi xumb neex ambiance ñuy dox ci biir rek euh, seeti supporter Balla yi seetaale tamit euh, mbër bi waxtaan ak moom laaj ko naka la dundee li nga xam ne moom mooy lamb ji ak préparation bi ak fans yi tamit ndax mbër booy dem da ngay sóoraale ñi nga bàyyi naan bu ma demee damay daan ñu ma bàyyi koñ ba yooyu noonu lépp rek dinañ ko xam Abdou su baaxee rek mun nañ dugg si biir seeti ki nga xam ne moom mooy mbër bi waxtaan ak moom. alhamdulillah. fële tur bi naka la Cheikh Moussa la tur Cheikh Cheikh Moussa euh, d'accord Cheikh Moussa euh, nga gis ne dembu Balla mu ngi bëree ak ki nga xam mom moy euh, Tafatin daan ko nak jël bu leer na ñu vraiment en tant que fan sa Balla gay naka nga gisee bobu victoire ah victoire bi kontaan nañ ci torop bu baax baax baax xam nga genre gay gay dañ xamuñ ko won quoi xamuñ ko mhm. Manam bo gisee lu mu def ci lamb yépp nga nga ñëw mhm. Euh, combat bii ni dooy ay caaxaan quoi nii parce que combat bi ñu mënoon doolaat si làmb yaa ngi comprendre voilà te moom maanaam Balla Gaye gars yi xamuñ xamuñ ko bu baax xamaguñ ko. xamoo leen nga ni gars yi xamuñu Balla yow. xamuñ ko. Balla Gaye lan moo tax ngeen dëgër fi di yéen. non ñun Balla moo daax bëre si làmb ji loolu kenn waxatu ko démb la ko prouvé démb la ni moom maanaam moom kenn doxal kii yoon tëkkale kenn maam. est-ce que nag du Tapha Tine rek la yab nag. Tapha Tine kese. dama laaj Modou Lo. yéen yéen waa Kër Balla yi lan moo tax ngeen yàpp Modou yéen. Modou Lo suñ suñ doom la. ay supporteram ñooñu yàpp. mais mooy seen buur actuellement. c'est supporteram ñoo ñun ñooy empereur ñun instant bi soxlatuñu roi roi des arènes soxlatuñu passé nañ ko bu yàgg. instant bi ñuy suñu nag indi na polémique de. ban ban genre polémique non. polémique amul. polémique na si. boo demee football dafa am ligue des champions am championnat. lamb il faut mu am loolu mais benn couronne kase roi des arènes CNG sax reconnaître ko. mais mais mais dañ ne Aziz Ndiaye noo noo déglu noo déglu Aziz daf ne euh, en fait dañ ne Aziz lan moo tax bi Balla nekkee roi moom amul idée bi mu bàyyi ba Modou nekk roi mu am idée bi. déedéet. déggoo ma de. lamb coow la. ñoom ñoom dañ dañ doon def seen seen kii boobu seen coalition boobu noonu. Mhm. si de si si defet la jógee. si de si defet la jógee yaa may dégg ñu ñëw jox ko kii nii euh, combat royal loolu normal te Modou Lo nalu bëré combat royal ba Balla da daxaa daan ba pare mu ñëw dem bëré Eumeu Sène. ku am défé du bëré combat royal. non lool normalu non ah, normalu dem bëré combat royal. Balla Gaye bi bi muy bëree combat royal dafa dafa daan 4 personnes 4 victoires la téglé xawma ëpp nako sax ëpp na 4 victoires mu dem téglé ko bëré combat royal daan. balay neex ngeen de. oh c'est lamb gaay yi dañu ko bëggoon yàq barki yalla gaay yi dañu ko bëggoon yàq. tey jii nii boo jiyee di. jël roi bi muy jox daawante ëmb seen ay mbooloo yi yëpp ay bombardier Balla Gaye tax Yékini toog vingt ans bëre vingt ans daanuwul Balla Gaye ñëw daan ko ibbi làmb ji tey mu ñëwaat jalal empereur ibbiwaat làmb ji instant bi gars yi Balla Gaye leen bëgg bëreel de bëgguñ bëre ak mbooloo foo teg loolu yow te moo di roi roi bu amul salaire yow tey jii yow bu ma la doon jox loo xam ne da ngay am salaire ak loolu am salaire booy jël ñëpp bëgg xaalis waxal rek bu amul salaire la nga avancé yow maam Balla Gaye maanaam Balla Gaye instant waruñu ko tëkkale kenn instant kenn amul kii. amul nawle amatul nawle. yi ngeen di tëkkale moo bokkul parce que roi bi moom la ñu reconnaître. yéen a ko yaa ko reconnaître ñun empereur bi la ñu reconnaître ñun. yéen waa Guédiawaye. empereur bi la ñu reconnaître. empereur moo raw roi. soxlatuñu roi des arènes toog 15 ans roi bi nekk fenn nekk Joal 15 ans kenn laalu ko yow nga ñëw indi ko biir Guédiawaye loolu la moo ko dàq mais roi boo xam ne tey mu dem Pikine suba mu dem Guédiawaye gannaaw suba mu dem Parcelles ginnaaw suba mu dem Mbour loolu amul sens roi da ngay yàgg si couronne bi comme Yékini nu mu def bu mu yàggee si couronne Balla Gaye ñëw terrasser ko loolu mooy roi loolu la reconnaître mais roi yoo xam ne ay ñëw fii bëreeg si te si da nga xam ne Sa Thiès dafa daan barki démb corrigé ko ngay bëreeg moom lu tax jëlu Sa Thiès lu tax jëlu Tapha Tine daa daw ñooñu Balla Gaye daal dañu wax ne dëgg. loolu nga gis daan yow. Balla ñu fi gën a tëla daan Tapha Tine toog na 9 ans daanuwul Balla ñëw daan ko Yékini 15 ans. d' euh, euh, nga xam ne yéen ay euh, fans ban bër ngeen xaar pour Balla jël ko ak ñun ku ñëw baax na soxla wuñ kenn ay mbooloo yi sax gars leen bëgg a bëreel bëgguñ bëreek moom daan nañ ko ñaari yoon amul leen ñu prouvé Balla Gaye amatul leen loo xam ne mën na ko si làmb au contraire day nekk fii nii di wër ay kii estat bi ñoo fuy. man waa Géeja waaye laa bëgg nag. waaw estat bi ñun jar a bëgg nag ñoo jar a bëgg de barki alxuraan. d'accord ah, Tafa yéen kàddu nga koy dénk rek comme moom yàlla def ko xañ démb. ah Tafa di na na muñ rek xam ne moom toog na a ans wul tey ñu ñëw daan ko lool du gàcce tamit barki yàlla ñoo ko mën. ku bu la daanee lool du gàcce tamit. mais ñu bari dañ ne Tafa dafa ragal Balla. Tafa mais Balla neexul ñeme rek. kaa ma ñi ko daan sax ñeme wuñu ay ëmb seen nga laaj leen Balla boo jaaxaaloo mi doo Modou Lo ragal Balla Gaye moo tax Balla di ko daan ñemewu ko wax jaa fi nekk nii rek moo tax Balla Gaye signature bi newoon na ko say supporters ñoo ma yëpp waaye yow yaboo ma du a yab muy ñëwaat si biir géew bi du ko mos a yab Modou Lo bu bëggee na ñëw troisième combat ñu leeral ko combat bu ñu bëreewoon pare ngeen ñun ngeen ma dem si Modou wax ak moom demal ba suba du la déglu sax du la sax faale ginaaru kookali Modou Lo leen jaambur yi. barki alxuraan du faale Modou Lo boo ko waxee ay waxu Balla Gaye nii du la faale tey. actuellement daal kontaan ngeen vraiment. ñun instant bi maanaam. lii nañ ka yàgg kontaan de. barki victoire bi da ngeen ko da ngeen ko fêté avant muy ñëw. laay ñun victoire bi nii defuñu dara parce que ñun xamoon nañ ne lii mooy mooy loolu Tapha Tine ñoo ko mën ñoo ko doole barki yàlla Tapha Tine gis ko noonu de amul doole de. ku daan ku daan ku daan daa gaaw a sonn. ku daan <laughs> da ngaa gaaw a sonn yow. kii nii kii nu mu tudd Modou Lo ay tafatin daan daan tafatin amul dara lu lay lu mu lay apporter tafatin nga xala nga doon fu ba wax dëgg fa ne yàlla ñun moom soxla wuñ jël bi maanaam Balla danoo ibbi waat làmb ji rek xam nga làmb dafa deewoon nañ waxante dëgg làmb day eh, keroog fii nga gars doon bëre machine yi la jeexee affaire yooyu Balla Gaye day ñëw bëre mu daal la wala nga daan ko wax ci jeex Balla dem dafa ambiance maanaam yéen démb démb làmb démb gisaat gisaat ngeen làmb instant yéen démb dund ngeen làmb yéen lii gëjoon ngeen ko dund de waaw yan combat. Euh, euh, kii Tafatine ak euh, kii nag comment dire ki mu doon bëree la ci Eumeu Sène. Eumeu Sène loolu du combat loolu loolu maanaam. yow Modou Lo yow fi ak Modou Lo bëree wu fi ak kii daan ko Boy Niang daan fi Ama Baldé. waa mais loolu loolu làmb ju ne. waaw loolu Modou la loolu moo ñun Modou Lo intéressé wu ñu. tax ne gëj ngeen dund. ñu moo ñu intéressé yaa may dégg te Balla Gaye dafa déclaré lamb lamb dafa deewoon di parce que alxuraan lamb dafa deewoon. yow mii xam ne carrément làmb dafa deewoon. làmb dafa deewoon de. tant que Balla Gaye bëriwul làmb du neex nañ waxante dëgg. Balla Gaye ba mu ah, gàddaay làmb na la fi defoon sponsor yëpp daw mu ñëwaat feesal amitié sponsor yëpp ñëwaat si làmb ji nañ waxante dëgg bu dee xaalis la Balla Gaye mooy indi xaalis làmb ji waaye yi kii pay sa wax na ko Balla Gaye lu muy jaay si si pay-per-view benn mbër suy bëri duñ ko jaay billet 6000 francs combat Modou Lô da gis billet 6000 francs combat keneen ak keneen doo gis billet 6000 francs Balla Gaye 6000 francs foofu yëpp fees mais wax na dëgg Balla mooy mooy làmb. mbër bi bëreegul nag. kan mooy sa mbër aa Ñamala ak Amaja. Ñamala Ñamala suñu bër la la kooku suñu bër la ñoom. mooy sa mbër. mooy sa mbër waaw loolu fii la dëkk. fii la dëkk d'accord merci beaucoup. merci beaucoup mais xoola di waxaale sam benn booy Omar Ba moom waxoon combat bi moom waxoon nii lay demee ne booy la kooku. fan la dëkk moom. fii la dëkk euh, golf la dëkk. golf day seet xanaa. kooku day gis booy bu ndaw la sama booy la ne booy seetal ma combat combat njamala bii di ñëw. combat njamala naa la ko indil koox naa la ko indil nga toog nii yaag moom mu wax la combat yëpp ni muy demee bandi la. ok merci beaucoup waaw merci jaajëf. allez jaajëf waaw euh, merci yaa ngi dégg rek euh, fan su Balla Gaye ñoom actuellement dañoo kontaan trop euh, vraiment nee nañ day dundalaat làmb te wane na ko démb dañu namoon victoire nag Balla indil na leen victoire actuellement moom. ne xam na ni nag géejuwaay actuellement mi macha allah contentement bu bu bu kii la ñu àndal euh, ndax seen mbër bi ki nga xam ne mooy le lion de Guédiawaye waaye Gaye moom la ñu ngemb dem pour mu dem bëre ak ki nga xam ne moom mooy Amdi Moustapha Tine mais yàlla daf ko may ndam ci digganteem ak Amdi Moustapha ñu ñëw waaye nag seet si fan si Balla Gaye yi fi nekk ndax actuellement moom euh, foo sànni matt mu takk ba tax na dama ci togg kenn koo xam ne rek fan si la ci euh, Balla Gaye soxna si maa ngi lay ziar. bu baax. Coumba Sarr yow sama turandoo yaay nga de. ya hmm, kon sa yaay laa kon. macha allah Coumba naka nga gisee li nga xam ne moom mooy lamb ji day ba. ah lamb ji nii rek la mu doon demee ndam rek lañu soxla woon ka am nañ ko. parce que boo xoolee jaar-jaar bi dafa metti waaw lamb ji metti woon no instant bi yaakaaroon nañ ñun pare nañ si lamb. que ñun moom yàlla dafa def ba ñun ñooy lamb ñun suñu ci lamb rek si boppam mooy pett lamb ndax balaa fi nekk tamit waaw yow ñu ñaanal ko rek mu day gën rek. parce que instant bi moom ñëw nañ mais ñëwaguñ normalement day gën a baax incha allah. Euh, mais bàll bi ñu gis démb dafa ñëw indi xadar indi li nga xam ne moom mooy euh, tamit euh, doole ñëw woon tafaati ne ko man maa la gën a fete xale. waa da koo mën da koo mën fii moom làmb ji moom bu ñu bàyyee rek wallahi azim bàll bàll defaral leen parce que moo leen mën comme moo leen mën moo leen dàq bële bëre ambiance moo ko fi dàq wax dëgg fa yàlla moom moom rek dañ mën a tëggal làmb ñu xam ne làmb am na. wallahi azim da koo mën dafa mën dafa mën tafaatin. d'accord Balla jógee ci ay euh, tolof tolof ñëw dal ci ki nga xam ne moom mooy euh, a tafaatin daan tafa actuellement ban mbër ngeen di xaar pour Balla dajeek moom. pare nañ lépp ku ñëw baax na. ku ñëw baax na instant moom wax dëgg fa boo ñu xoolee rek xam ne pare nañ ku ñëw baax na. xaaroo leen benn adversaire. xaaruñu kenn ku pare rek na ñëw. ñu ngi nuy toog waa. pare ngeen pour jëlaat ëmma. yàgg na. sit moom la des ëmma moom nañ bu yàgg ñu ragaluñ de. Ah, amuñu lu ñuy ragal. Balla rek mooy meeru euh, Géejawaay de. loolu du dara loolu yëpp garaawul na ñëw na ñëw ama seen ki ka daan ñu ñoo ko daan amul problème. daan ama ko daan. ñaar ñu ko daan ñun ñoo leen defar affaire ñun dañuy tiitaroo ñun ah ñun làmb ji ñoo fi teg loxo voilà mi ngi noonu xam nga kilifa yu mag yi bu ñu bàyyee ba bu ñu bàyyee seetaan rek sotuñu Balla defuñu dara Balla moo fi ne. la démb gis nga assistance bi ko mbokkam yi assisté. waaw bu baax démb lañ see jàpp parce que dañ ñun dañoo namoon victoire bi ñun dañ ko namoon dañoo namoon Balla Balla démb boo ko gisee lu mu indi comme contre am Yékini loolu la fi indi démb Balla beneen Balla moo ñëwaat que incha allah beneen yeneen yeneen Balla mooy ñëw. Mm. sa xol sedd na daal. lool sax loolu yàlla ko jig jig ñu ñun supporteram yi nga xam ne ñun moom dañoo pare ànd ak moom. waaw macha allah daal yal nañu jik ki nga xam ne moom mooy euh, tafaa tamit lu ana yéen kàddu nga koy dénk. waaw na defarwaat te xam ne làmb nii la tey da ngay daan suba ñu daan la. waaw na defarwaat Balla moom yaakaar naa gaynde gu xiif sax bu jàkkaarloog moom mënu koo ñeme. waaw fii lañ ko fekk fii lañ ko fiy bàyyi daal. da ngeen a napp Tapha de. ah Tapha dafa ragal dañ koo jël jël bu njëkk Tapha dafa Tapha instant bi ñeme woo ñu. Mm. waaw bëri na si morom rek dafa kese de fa bari la si borom de ku ñew ni lañ lay defar mm. waaw mais nañ gëm wa ka wa mu looyu ñu baña yaq di mm-hmm. ndax li am am ba pare yalla ko dogal yalla def ñu mën leen mm-hmm. nañ nangu ni mën nañ leen ba pare rek nañ waa Balla lan mo tax yeen su ngeen dugaloon Modou seen affaire rek du neex wa parce que mur mo ñu xol ko xolom du neex wa Lo dafa yaakaar ni juutal beek loolu yëpp si la fekk ni yalla la rek yalla moko dogal daal duñ ko mën nañ sant yàlla rek bañ a salter victoire bi. waaw jàmm merci beaucoup. ok amal jàmm yow. allez jaajëf euh, dégg rek fan su euh, Balla bi moom dafa kontaan trop vraiment ci victoire bi nga xam ne Balla euh, indil na leen ko démb ndax nee nañ dañ ko namoon trop waaye Tapha Tine tamit ñu ngi koy ñaanal moom tamit su amaatee combat yàlla may ko ndam ndax lamb ji moom nee naa la ñoom ñëpp doomu Sénégal lañ. ñu ngi taxaw ak suñu papa Lirou Diane moom moom kenn dootu ko présenté fii ci lamb ji papa maa ngi lay ziar. noo gisee làmb démb. kontaan ak neex rek. Khadim Ndiaye dana woon day teg soxnaam. ah. nga ne. Khadim Ndiaye dana woon day teg yow tamit nga teg. ma teg waaw léegi gagné naa ko. yaa gagné de. waaw gagné naa ko léegi. xaar ñëw na jabar ji ñëw rek. mayor ñaari jabar léegi. ah way comme tegoon jabaram léegi gagné naa ma teg sama jabar mu teg jabaram léegi gagné naa ko léegi jabar ji na ñëw. léegi Balla Gaye dafa daan léegi ban mbër ngeen di xaar pour mu jël. benn jigéen boo xam ne nday mari bu Balla gay 2 nag ma génneel lii dafa def geste bu rafet daf maa woo sànq sargal ma delloo ma njukkal yëkkati xaalis bu bari may ma ko nday mari bu Balla Gaye 2 bu marché marché HLM nday mari bu Balla Gaye 2 bu marché HLM billahi wallahi taala yëkkati xaalis bari envoyé ma ko ndax lan am mbégte ci man kontaan ci ne ma lii maa la ko sargalee te nag bari na ñoo xam ne def nañ loolu ñoo ngoo koy dik ah ndam dafa rëy ndam dafa neex loo ko jëndee jar na ko loo ko jëndee jar na ko. ban bër lay xaar ak. may la ñun pare nañu waaw ah, dañuy feet suñu fekkee da ñu may tuuti ñu dallu nag di feet suñu victoire ay Balla Gaye 2 mooy lambu nan ko jàkk bañ koo piis la yalla jox li nga xamne mom moy ndam bi ñu ñew na kërëm tay seet si ko fekk fi ay xaritam ay am di jammam ay supporteram ñu fekk ci kenn ko xamne rek ci wa kër ball la señ bi ma ngi lay jé maa ngi doon la ziar baax soxna ci bi naka la. Ndigal. Ndigal Ndigal bokal Balla gay Ndigal ndongal Balla gay école bu écrit Balla gay Ndigal mbeur école dulit lutte Balla Gaye. ah école dulit lutte Balla Gaye. oui ah, d'accord Ndigal naka nga dundé làmbu dem bi. ah mais kontaan rek comme dab rek xam nga dafa neex nga dugg ci mbir ñep ne la mënoo si dara yàlla suñu borom surtout la nga wan a jom ak fulla ba réussir ko total quoi tey moo fi bàyyi sénégalais yi parce que bi mu jëlee Tafatine képp ku nekk sénégalais tiitoon nga si quoi parce que ak Tafatine ak gabari bi mu yor ak niveau bi mu ñëwee quoi toog 10 ans daanuwul yow nga jóge si defet ñoo war ko jël quoi ñëpp xeeb ko moom mu gëm boppam ba yàlla may ko lii ma ko may tey doon wax Balla Gaye eh, jeexal na mënatul dara Tafatine daf koy daan Balla ñëw daan ki nga xam ne moom mooy eh, tafaatin eh, yéen Balla Gaye da ngeen wax ak moom da ngeen ko conseil ne ko boo demee bul xaar Tafa wala da ngeen ko bàyyi mu dem ak xelu boppam. non Balla Gaye ñun amul lu ñu koy conseil si làmb parce champion la yàgg na ci làmb xam nga dari nag dinañ ko accompagner gunge ko dooleel ko pour mu gën a am courage parce que boo gisee ay xale nag sa ginnaaw ñoom ñëpp ñu bëri daan ren école bi am nañ 32 victoires. démb la suñu 33 victoire démb moom war a ñëw confirmer ndax bu école bi yëpp daanee moom mu des loolu sas la en même moom champion la kenn du ko jàngal nooy bëree ndax yàgg na bëree xëy na wér gu yaram lañ ko doon ñaan yàlla ak entraînement bu doy te bi nga ko amee ñun suñu xel daloon na ni bu jàppee Tapha Tine mën na ko daan. d'accord ana ban mbër ngeen di xaar pour Balla jël ko. te instant yii nii dañuy xaar euh, ñun amuñu temps pour xaar ay benn combat am na seen mi ngi fi amagul combat xam nga te ñoom ñaar amal na ko revanche kon xam naa ne combat bu xaar jël ko pas ñuy xaar ay Modou Lo Siteu quoi waaw parce que amul Issa Balla Gaye amul benn temps waaw Balla Gaye amul Issa amul ku ñëw baax na waaw. coowoon ampleur bi. non ampleur xam nañ ne Balla Gaye doon ko mën a jël mu safe parce que ampleur mooy fekk Yékini toog 15 ans daanuwul mu daan ko mu fekk Modou Lo tegale 14 victoire mu daan ko mu fekk Coly Faye 2 mu daan ko fekk Bathie Seye musul daanu mu daan ko kooku noonu te fekkaat Tapha Tine toogaat 10 ans koo daan mu daan ko loolu mooy ampleur. kooku mooy fekk lu mënul nekk rek mu def ko muy Balla Gaye 2 chaque jour bu ñëwee lii mënul nekk rek moom loolu lay bañ a dégg waaw. mais de. waaw parce que ñu xamul ñoo xamul mais sport dafa war a yaatu am ay trophée yu bari parce que tey euh, meilleur lutteur dafa war di am euh, ki dàq tous dafa war di am trophée ki gën a mën a mobiliser dafa war di am trophée loolu lépp dafa war a am ci làmb quoi mais nag ko xamul yaa xamul quoi mais li defar la yokk yaa làmb la mais wàññiwul làmb quoi. kon daal yéen bëgg ngeen nañ bu baax a baax ndax si gilatu communiquer wonn ci avant wax ci lu ne tey bu ñëwoon wane Yafous sek suñ image day yaq mais heureusement lepp luñ ci wax mom jëfé na noonu oui. merci beaucoup. ok ñoo far. Ah, mais yow tamit mbeur nga. oui mbeur ma doon bëree koro dimanche euh, combat Ama balé Gris Bordeaux yàlla may ma man ak armée ben barak ah, félicitations. ah merci. ban beur nga xaar yow. Euh, non instant bi man ma ngi xaar combat yi tas euh mbey guy gi euh, Moussa ndoy dimanche inshallah samedi mhm. boo ko defee ma xafa sama adversaire quoi. mais daal sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp gis nga waa école de Balla Gaye a ngi taxaw kos yi Lamine ñoom mbës ñoom ko bëggaloon suñu bopp jël ko di sant tamit Aziz Ndiaye bu baax gis nañ taxawaay bi ak jàppale bi di sant waa Guédiawaye yëpp képp fans Gambie yi yëpp ñu leen sant di mastaw nag tamit waa Bawol parce que woon sport la xam nga foog kenn day am kenn ñaax Tapha Tine démérité wul ma daan du gàcce moo daan ñëpp Balla Gaye comme daan ki daan ñëpp daan la waaw benn Eumeu Sène dafa daan te bu soobee yàlla bala ñoo teg suñu ngëm dañu ko daan incha allah. dañ koy jël incha allah dañ koy jël daan ko bu neexee yàlla Balla Gaye fi mu teg combat bii di ci entraînement ak respecté ko bu ko jëlee Eumeu Sène dinañ gis leneen quoi. mais actuellement ak ni mu jógee nii est gis nga Balla jël Eumeu. non si Balla amul lu muy moytu wax naa la ko mooy ampleur boo xam si ni moom mënul nekk rek lay benn dégg chaque instant day ñëw di ko jëlee respecté ko da koy daan wallaay da koy dal. nga wax de. xam naa sama waajib bu baax. naa la wërsiwaat de incha allah non maa ngi fi soo laajtee ndigal doo réer. billaay wallaay. d'accord merci beaucoup. jaajëf baa ngi gërëm bu baax a baax di gërëm ñëpp waaw. d'accord merci beaucoup ndigal. kan. papa bu golf. papa golf laa dëkk. mbuur papa bu Balla. waaw papa bu Balla noo dundee ji démb. làmb ji neex rek Balla moo ko mën moo ko ëpp doole. Hmm. gars yi naan moo ko sut. Ah. waa mais moo ko ëpp doole. Ah. Balla lion la. moom xoolal ba mu ko tiimee laa xam ne amul lu ñuy ragal da koy daan. Hmm. loolu rek laa amoon lu may wax. ban bër ngay xaar pour Balla jël ko. ban bër man kii rek laay xaar Siteu. Siteu Siteu rek laay xaar ñeme ngeen Siteu yéen waaw non nah, Siteu du dara kan Siteu du dara Siteu ñoo ko lu nga ragal Siteu suñu mbër rakam moo daan Siteu xam nga ne ñun Siteu booy dépassé nañ ko ah yow ñun saa roi bi la ñuy seet mais mën ngeen mën ngeen Sathiès mën na daan Siteu Siteu ñëw daan Balla waaw waaw la moo tax ngeen dépassé ko ah Siteu ñoo ko dépassé ka dépassé nga ak du biscuit du lekk benn est-ce que du lekk benn lekk benn tegaloon benn du si lekk benn. bu ko Sa Thiès wan nga la ko Balla Gaye wan lu ko raw. billaahi lu raw loolu noonu. mais bu dee bu dee Siteu bu dee bu dee Siteu moo daan Modou Lo jël roi bi Balla Gaye day ñëw jël roi bi pos. wala Sa Thiès. yéen gis ngeen Siteu daan Modou Lo yéen. ñun non non non ñun isaan loolu suñu yoon nekk si loolu. ñun loolu suñu yoon naw si. ñu suñu yoon nekk si loolu noonu loolu waa bi ñëw rek ku daan. dañ lay jël force da ngay bëre. mais na roi bi li ko dugal parcelle génne wu ko. non loolu loolu day wax lu ko neex loolu day wax lu ko neex lu ko lu ko génne pa lu ko dugal parcelle loolu loolu mu ngay génn dina ko génnewaat incha allah ah. waaw. pare ngeen fa lay fa lay dugg génne roi bi waaw. Ah, pare ngeen Balla jël Modou. non pare nañ pare nañ pare barki seetlu naa da ngay daw mais ay parcelle parcelle lu mu def Pikine du ko def la. Molo tapel la tapel la dégg naan naan yaay naan ko isaan ko bul bëre Balla Gaye ak yooyu noonu yaay Balla tamit bañ na non yaay moo bañ Balla non moo bañulee bañulee bu def kon danañ koy jëli dañ koy jëli ñëw juutalaat ko waaw merci non ah. combat démb bi. xanaa am am mbégte mu rëy rëy rëy mbekk mu rëy rëy man Touba laa jógee démb c'est la première fois may soog a ñëw ci combat Balla Gaye 2 waaw war naa xam nag li tax ma ñëw fi parce que damaa dagg sama itte ñëw fi ngir moom waaw parce que am nañu bari ñoo nga xam ne si même bi ma la ñëw sax dañu ma doon reetaan waaw bi may am sama waa gaale bi ma leen damay dem Touba euh, fële Dakar gëmuñu ko mais maanaam dafa mel lii laa xamoon quoi moo tax ma def teew waaw la ma doon. rëccuwoo loo ñëwee daal non rëccu ma ci am mbette mu rëy rëy rëy rëy rëy waaw. war na Serigne Touba bég naa bu baax a baax waaw mais daal li ma li ma bëgg daal Balla Gaye daf ko mu xaar Siteu ak ak mu Lo waaw mais su ma euh, du jël du jël kii ama seen du question ragal sax mais ama mi ngi daw Fra na jël Fra yaa ngi dégg dafa am ci luñ jógee xoolaat bu baax fi ñu teg suñu tànk. non dépassé nañ ko parce que Balla lim def lu extraordinaire maanaam lim lim lim def Franc jaaru fa Sa sax pardon maanaam euh, raw na sax Franc waxuma la ak Balla gi dëgg ku daan yëkkandi rek doy na sëg aw way noonu la fa demee. tamit mu jël Franc tamit euh, si la bokk ndax xam may xale xale yi seen saas. non non non non non maanaam dégg la Sa Thiès laa la wax nii jéggi jéggi na Franc waxuma la ak Balla gi dëgg Balla xoolal ñi mu tegale men amul menn mbër moom si maam tegale na ko daan loolu ngay loolu ku doo xam ne Touba ak fii ay kilomètres yu bari la lu ma jaral jóg rek damaa jaral quoi te man ay caaxaan yëkkatiwuma ci fa noonu la fa demee nag. merci beaucoup ok ñoo fa jaajëf ok d'accord soxna si ñun doomu géejëwaa leen barki Serigne Fallou Mbacké Balla Gaye isaan bu tekk woon ngëmam ñun soxlaatuñ ko dara billaay wallaay bu ko neexee na la am jël kii kii làmb moo tax bu ñu wax làmb kër dubalay moo kii takk ngëm ci nga tekk sa ngëm barki Serigne Balla du moromi booy yi Tapha Tine li waxoon moo tësi làmb léegi dem ba nga demee sax loo gis dama ko ko wër na yàlla instant bi combat réel lay bëri instant bi toni Modou Lô ak Tapha Tine laay xaar Modou Lô ak Siteu laay xaar ñu bëree ko mu daan ma am Siteu daan ko jël roi jël empereur léegi wax ci jeex comme que jël roi karaa ñoom ñëpp dinañ nangu d'accord lamb loolu ku ko bañ joro lamb lamb Balla Gaye la lamb buñ ko wax kër dubalees moo tax siisu maanaam nag bu leen neexee ñuy siisu

non bu ñëwaat yow 2000 lañ koy jàpp daan ko. waaw yaa ma gën a xam. merci ok jaajëf ok Gueye noo conseil laa mujj démb. laa mujj xanaa bëgg rek. mbégte waaw suñu noonu luñ bëggoon daluñu quoi. gars yi liñ doon fa lañ lañu bëggoon. suñu noonu ñoo bëggoon door ñu daanu kon ñu ñëw duma ñëw daan. gaa billaahi. yéen a duma yéen a daan. ñëw duma ñëw daan. waaw Bawol nanguwuñu de. waaw Bawol ak Tafa ñoo daanoo doo ñoom la lañ bëgg ah dama bëgg gaañu <laughs> Tapha Tapha Tine déggoo ma ne démb làmb ji loolu rek la si amoon ambiance boobu mu doon def jàpp dugg fii génn fii mais billaa man gëmu naa ne bu barrière yi tëjoo man sama mbër xam naa ko Amar mu liggéey entraîné am doole lu Tapha Tine yi moo ko téye si làmb quoi. ñëpp ne Balla jeexal na Balla ñëw jàpp Tapha Tine euh, duma ko daan ko ban mbër ngeen di xaar pour Balla jël ko def ko comme ni mu def Tapha. ñun instant yii nii déggoo ma de si ta mbooloo daan bëgg nañ ku daanu nag soxla wuñ la si da Modou Lo ku daan soxla nañu. Modou Lo ak balle gay sen sen sen parents yi dañu wax ne ñom ñaar duñu dajé non non lamb la rek gaay yi wax ni rek mais Modou Lo bi nga fay xaas mu bëre balle gay de bi balle gay tam bi nga fay xaas mu bëre Modou Lo waaw. waa kër Modou est ce bëgg nañ. waa kër Modou waa kër Modou instant yi ñu ñooy bañ de ñu amul luñu bañ ci ñun ñom kuñ fi téggi daw ko ñu ko walañ dem jël wan leen dara daan ko. Eh, Modou ñom ñoo la wax dañ ko téggé yow. dañ ko daw Modou Lo warul baay fofu euh tabatin di jël ay sita billahi mo tabatin lamb la won di leer nañ mais dafa bàyyi Tapha Tine foofu dem jël Siteu Balla Gaye jël Siteu wàññi ko làmb du loolu. est-ce que est-ce que fekkul boobu ak euh, Tapha taxaw. non non Balla Gaye dañ ko Siteu dañ ko tegal ay avance yu bëri Modou Lo tamit tegal ko avance yu mu bàyyi ñëpp dem jël Siteu. choisir Siteu daal. waaw moo gën a nooy. waaw Siteu moo gën a nooy loolu xam Tapha Tine gars yi dañu doon wax ay nag la ak guy lu ne. ñun saa suñu gaynde gu màgget gi moo ñu gën a lu ne de barki alxuraan. mais ngeen gis Tafa bi ñuy def signature contrat stade Tafa bi ñëwoon ak Tafa bi ñëw démb làmb ji est-ce que benn bi la. Tapha Tine boobu daa tiitoon def ay ndax su Baye Fall ci biir di ñu mboboo ñu ñoo gën a nekk ay Baye Fall fu barki alxuraan Omar sax màggal Touba day def safar 18 safar gi da koy matal ba jour màggal mu naan ay damaa ngi def ndax su Baye Fall di ñu mboboo tàppel la li mu doon wax noonu gëmu ko billaahi yéen waa Bawol jàppee. waa Bawol amatul lu ñuy de xanaa ñu rek bañu ñu dem. Bawol dañuy ñëwaat dañuy ñëwaat. situation doo waaw nañ xaar caatu Daara Fall wala Saakees la du bëre ñoom parce moo mën tafaatin. Saakees moo mën tafaat. baa ñu jox leen caatu Daara Fall ak ñoom Youssou Ndour gars xaar wala caatu Daara Fall. loolu nga gis yow. waaw. moom isa wax na la bëgg na ñooñu. tafaatin. tafaatin Balla la daan ko. waaw. Balla Gaye jàpp bala Gaye ko jàpp duma ko daan ko na jël fii sa Balla wala caatu Daara Fall ñooñu ay ñooy ay ñu ngi doon wax ne Tapha dafa am ci ci côté euh, bi noonu est ce que loolu c' est vrai. non Tapha amul blessure dara jotu ko ñu ngi ñëw di jël ñu doon ñoo tiitoon ni ñaay. ñu doon nii mel ni ñaay ñëpp a tiitoon. ñëpp la ko doon def fit ñëpp tiit fan su Balla mais bi arbitre sifflé la nga xam ne pomme du moromu neew. lan la doon un un la doon def. un la doon def. ñu naan ko deux heures gaaw ñu naan ko deux heures gaaw du ko daan ko. bu mu nekkee trois. ñu nokk ko mbabat. waaye ma nañ ko mbabat donc tey ci arène. dafa min na baal la de. dafa dafa saa yi fu la fu ko fekk dañ koy naka su dul noonu. non waa kër Balla yi amatuñ. billaay wallaay gëlëm la billaay day zembare rek ñun Balla rek la ñu toog. mais garaaw mais garaawul Balla day dem def euh, kii Tafa day defarwaat ñëwaat. day defarwaat fu mu ñëwaat. fii. Ah, bu defaroon na xool fu moom daam jëm ba ñëw fii moom bu dëggatee waa géej waaye day tourné. Franc menn Franc fi. Franc nga waaw loolu dem xooli Franc. Franc yi Franc ku mu xët di nga nelaw ñaari fan. na. fan sa Franc yi nee yi nee nañ ku mu di nga nelaw ñaari fan. moo yow na dem jëli Franc Franc lañ koy jox Franc yi moroomam Franc. Franc mooy moroomam waaw ñu waaw loolu laa gis. ñu jox ko Franc wala caatu Daaro caatu caatu Daaro Fall. na bëreeg moom. waaw wala fii sa Balla. d'accord loo bëgg a wax ay naan saaket na ko jox saaket na ko jox saaket ne ko mu teey Franc defagul si làmb lu muy jotee saaket bu bëri ak moom billaay walaay saaket xat-xatu làmb bi la nii rek. mais du moroom sax Franc. mais mën na ko jël. instant du ma du làmb du jamono. boole na leen mais du jamono ji la leen boole de. Franc la la def ay bomba jéemi mu daan bomba jéemi. Sa Thiès moom actuellement nii jëlagul benn combat. Sa Thiès moom amagul adversaire ñu ngi xaar quoi. lan ngeen bëgg ñu ngi xaar rek. Modou Lo de ku daan soxla nañ la Sa Thiès. parce que Seydina am. est-ce que Modou dina nangu. nga ni. seet na nangu ngi may booy sens na may Sa Thiès waaw. gis nga lool Modou Lo si de ku daan Sa Thiès na la ku daanu nag soxlawu mais ku daan moom Modou Lo si de Salif soxla na la quoi. mais Sadio gisoo mu jëli waaye revanche am ci euh, Boy Niang. Boy Niang dafa teel ñun dafa war a duggaat Géejawaay barki Alxuraan te dafay duggaat incha allah bu nekkul saaga si Balla Gaye lay nekk waaw. pare ngeen ñun dañoo pare fépp instant mbër instant yi dañ koy dàqaat mu dellu dem liggéeyi ndax dañoo jëkk. coowal empreinte bi. coowal. empreinte bi empreinte waaw rek yàlla moo ànd ak ñun. ma ni cool yi bëri woon na mais yàlla am naa ñun billaahi ah, mais ñu ñoo xam ne roi fii empereur fii est loolu tamit euh, indiwul benn coow non lii Assane du roi rek loo xam te Assane Ndiaye dafa bëggoon lu rafet rek waaw mu mu tuddee ko empereur sax Assane sawaay jël na ko gars yi sant nañ yàlla mais après couronne bi lañ soxla couronne bi siège si boppam te day ñëw a yàlla baax na waaw kontaan Assane yi suñu xool bi moom dafa sedd amul desalatuñu dara Balla Gaye moom li lu ñu mos a metti rek démb fajal nañu ko quoi parce ñëpp ngi taxaw ni dañuy daanu mu ñëw defal ñu lu neex waaw bëgg suñu xool supporteram yëpp dem ku gis Guédiawaye fii da ngay foog ni Magal Touba la gars yi jëm mais mais pour cent bi ñuy wax euh, Pikine di ko wax euh, fi nga xam ne moom mooy euh, parcelle est-ce que cent pour cent boobu am na fi nga xam ne moom mooy Guédiawaye cent pour cent bi mi ngi biir Guédiawaye mbëru dem nañ jàppale Balla mbëru Guédiawaye mbëru Guédiawaye si kër gi boo tourné nii mbëru Guédiawaye yëpp ngi si biir kër gi démb ba Balla Gaye daanee Guédiawaye la njëkkee Guédiawaye instant deux cent la nekk cent pour cent <laughs> 100% ñu bàyyee koog ñan kon. 100% na nga ko bàyyi ak géejawaay 200% laa a na nga ko bàyyi ak géejawaay kuy def sa 100% nga def sa 100% géejawaay saa ne 200% lañ def. yàlla baax na. te saa day gën a dem ci kanam day ñoqalee rek. ci kaw waaw day daw rek. merci kontaan jàmm ci téléspectateurs yu CNM Africa 7 TV euh, ginnaaw bi ma leen jaajëfalee bu baax ci ànd bi euh, la woon te Balla Gaye moo am ndam ci kaw euh, Tapha boo gisee këram gi rek machallah ñëpp ñu ngi fi di ambiance Balla tamit moo ngi fi di saafante ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay fansam gis nañ fi tamit mbër yu bari mbëru géejawaay yëpp ñëw nañ dajee fi kuñ ci xam boucher ay kii ak liiru jaan ñoom ñëpp ñoo ngi fi mënoo lim boo limee rek da ngay juum Passepartout nee naa la bàyyiwul dara fépp lay dem lépp la leen di indil tey nag dafa doxantu woon euh, Kër bala suba dañuy dem euh, feneen incha allah di leen jox rendez-vous demee incha allah euh, ci beneen numéro.